ñu ngi leen di nuyu ñu ngi leen di ziyaara di leen di dokkeel di dokkeel suñu bopp ci li nga xam ne moom lañ nekk muy ramadan muy weeru barke di weeru màgg ci lislaam di ci ndokkeel di ndokkeel julli ñi fu mën a nekk ala zahri hazal kawkab ci kaw suuf si gannaaw loolu ñu ngi ñëw ñëw ak yéen ci émission bu bees muy émission zaadu ramadan ñu koy wax yóbbalu koor ñu koy amalee fii ci seen bi nga xam ne moom mooy Guédiawaye info ci heure bii nii di waxtaan ci diine tey nag ñu nekk ci li nga xam ne mooy weeru koor ñu war a waxtaanee weeru koor di weeru alquran di weeru màgg ci jullit ñi weeru alquran rek bi ne weeru alquran doy na parce que alquran bi ci wàcc bi nga xam ne dafa ñëw pour defar àdduna dafa ñëw pour defar doomu aadama yàlla bind àdduna waaye ba mu ko bindee daf ko boole li nga xam ne moom la koy defaree dañuy wax ne nit ku ne boo defaree mbir am na catalogue boo ci def bi nga xam ne bu amee problème fa ngay jaar pour defar ko ñun nag suñu àdduna pour ñu defar ko ci alxuraan alxuraan la ñu mën a jaaree pour defar ko kon ñu ngi ndokkeel bu baax suñu bopp ci weer wi nga xam ne ci la alxuraan wàcc pour ñu defar suñu àdduna ñu war a waxtaanee nag li nga xam ne mooy koor ak importance bi mu am ci jullit ñi ak ci doomu aadama yàlla daldi ko tudd ci boppam ne yaa ayuha alladina amanu kutiba alaykum siyaamu kama kutiba ala alladina min qablikum laallakum tattaquuna eh, yéen jullit ñi man maa farataal ci yéen li nga xam ne mooy koor kom ni ma ko farataale woon ci ñi ko ji ñu jiitu woon pour lan pour ngeen am taqwallahi tabaraka wa taala taqwa bu ko nit ko amee fa lay mën a jaaree def lu ñuy wax not bakkanam ak not ki nga xam ne mooy cheytaane yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wassalaam dafa wax ci xadis mu ne inna cheytaana yajri mibni aadama majra dammi mu ne cheytaane dafay daw ci doomu aadama comme nii deret di dawee ci moom ñu ne kon nag problème am na nu ñuy def ba kon bu mucc gannaaw mi ngi takkook ñun di daw bay daw suñ biir deret ji naka la def bu mucc yonti yàlla muhammad daal leen daal leen jox solution solution bi mooy lan muy fa dayiqu majaariyahu bil juu fa muy jaar di daw yéen na ngeen fexe ba xatal ko ni ñu koy xatalee mooy nañ ko xatalee ci li nga xam ne moom mooy xiif kon nag nit ki su buggee xeex seytaane dëgg-dëgg nay day bëril di xiif parce que nit bu suuree ci lay mën a def li muy def ci lay gën a seytaan di gën am ci am doole ci moom kon nag nit su bëggee xeex ak seytaane na na def li nga xam ne mooy xiif moo tax yonent yàlla Muhammad alayhi salaatu wasalaam ba muy digal ndaw ñi parce que cawarte bi nga xam ne mooy pousser nit pour mu dugg ci lu neexul yàlla fi mu gën a fi mu gën a amee doole mooy ci ndaw waaye nag ba muy ñaax ndaw ñi boo tollee ci yenn âge yi am na loo xam ne daf lay dikkal bu la yàlla dimbaliwu rek mën nga tàbbi ci li nga xam ne mooy njaaloo moo tax mu ne yaa machara sabab man istata minkumul baata falitazawaj yéen ndaw ñi ku ci mun a denc rek am mooy yow denc na denc ndaxte loolu moo mën a moo gën a mën a fekk sa bët ngay xool ci loo xam ne yàlla daganu ko wala te it moo mën a fekk sa xol waaye nag su fekkente ne nag amuñ mooy yuñ takkee jabar mu ne fa aleykum ba aleykum bis ma ngi leen di digal ngeen koor parce que koor booy tax nit bu ooree boo xiifee da nga tal leneen lu def la leneen loo xam neexut yàlla kon bokk na ci li nga xam ne ci lañ ko mën a jaaree pour not seytaane wala not suñ bànneex bakkat bi nga xam ne si lay seytaane di jaar pour def la ñu lu ci lu neexut yàlla moo tax yonte bi na fa dayiquha na ngeen ko xatal fa muy jaar pour jax-jaxal leen na ngeen ko xatal na ngeen ko xatal ci loolu bil juu'i ci li nga xam ne mooy mu ne nag bokk na ci wa inna aqraba annaasi yonte bi mooy wax ba tey de wa inna aqraba annaasi ila allahi yowma alqiyaama bokk na ci kii gën a jege jaami yowma alqiyaama kii gën a jege yàlla ci jaami yowma alqiyaama mooy koo xam ne man taala juuhu wa atashuhu mooy koo xam ne yàgg ngaa xiif yàgg ngaa mar mooy say xiif dafa yàgg say xiif bari na say mar bari na kooku bokk na ci ëllëg ñuy gën a jege suñ borom mu ne nag bokk na ci wa azamul muhlik واعظم المهلكات لابن ادم بوكنا تي لي غنا ماغ لي الاك دوم ادم شهوه البطن موي بانيخو ليغا خامني موي بير بانيخو بير بوكنا تي لي اوب لي لي غنا ماغ لي الاك دوم ادم نحت فيها من فيها تي بانيخو بير اخرج ادم وحواء من دار القرار الى دار الذل والافتقار mu ne ci loolu ci lañ génne aadama fi nga xam ne mooy aljanna yóbbu ko ci kër gi nga xam ne mooy kër ak sax génne ci kër sax gi nga xam ne mooy aljanna yóbbu ko ci kër gi nga xam ne mooy kër ak toroxtaande ak kër ak ñàkk keroog ba nga xam ne yàlla dafa bind aadama alayhi salaatu wasalaam dugal ko aljanna moom ak xawaa na leen may naa leen lekk leen lu leen neex waaye nag garab gii bu leen ko laal garab gi nag am na am na ñu ne mooy am na ñu beneen garab la waaye nag jox na leen ne leen lekk leen lu leen neex ba mooy garab gi bu leen ko jege aadama ñu daal di lekk garab gi bañ ko bañ ko lekkee lépp lu nekkoon leen di suturaal daal di dañ yàlla daal di leen génne aljaana ngir lekk giñ lekk garab gi topp seen bànneexu biir kon moo ko waral moo tax mu ne fa badat lahuma sawatuhuma mboolem la leen yàlla defoon ci sutura yëpp yàlla gindi ko kon bokk na ci kon not sa bànneexu bakkat not seytaane kon ñu ngi koy jaaree ci weeru koor léegi nag alquran tudd ci biir ne koor dafay ñëw pour lan pour noon pakk boo xam ne dafay doon diggante nit ki ak ak lépp lu mooy yàlla pakk lay doon diggante nit ak mooy yàlla dafay doon tamit bis ñu ne weer la boo xam ne dañuy bu ubbi buntu aljanna yépp te dañuy jing seytaane kon weeru màgg la yàlla nañu ko yàlla xamal te yàlla nañu ko yàlla dimbalee bañ mën koo def mu nekk alquran daal siti na laallakum tattaquuna ngir ngeen ragal yàlla muy baat bu am solo la mbooloo xam ne lu bari la dañ naan kalimatun jaamiatun li kulli xayrin baat la boo xam ne làmboo lépp yiw ci àdduna ñu ne maanaam mi nag mooy lan mooy imtisaalul maamuraat wa cinaabil manhiyaat mooy nga topp ndigal yi te it nga bàyyi tere mu ne ci loolu nag ci leen di ki amee li ñuy faral di ñaan rabbana atina fi dunia xasanatan wa fi l axirati wa qina azab na su boobaa ci lañu mëna amé a amee xewalu àdduna ci lañu mëna xamé xamee xéwal al-akhirah waye insha allah wax nañ ne temps ñing ko émélé fi euh ba benen yoon ñu continuer ci li nga xamné moy mooy njëriñu taqwa la mo ci nek insha allah waye ñu leen fàttaliku ñu leen di jox suñu numéro képp ko xamné am nga loy lerru ci diine wala am nga loy laaj rek ñu leen jox numéro bi muy 77 170 10 71 moom mooy numéro bi danañ ko bind ci suuf incha allah képp ko am looy leerlu ci diin rek eh, ñi ngi ñi ngi xaar sa sa sa sa ñi ngi xaar ëllëg incha allah boo ñu ko bindee rek ci suuf rek danañ la ko danañ la ko leeral incha allah kon ñu wax wa axiru daxwaana daxwaana alhamdulilahi rabbil alamin wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu di leen jox dajee ci beneen émission bii di ñëw incha allah